plateforme bi qui demande d'emploi soko ko moy qui a emploi da lay bind wax la né la dama bëgg emploi cursus universitaire li mu ak expérience bi mu am bi mu stage bi stage ba paré fan la liggéey su exactement bon maintenant su fekkee nous, on a beaucoup de bureaux. On a la direction générale pour l'Afrique, pour le Sénégal, basée à Dakar. On a une direction régionale qui est basée ici à Kaolak. Bon, si nous déposer filles, déposer Et on est à l'ère du numérique, du digital. On n'est plus à l'ère du papier. On est à l'ère du digital. Donc, on s'est dit, en créant cette plateforme, ça va nous, nous permettre. Euh, nous, nous, site B6 Plaza Recruit le tout, Six Plaza Recrute 6 duggee donc toutes les informations mingjibir en fonction de votre profil vous cliquez dina la yóbbu ci ce profil Si vous ci ce profil vous avez ce métier vous avez ce métier wax sa âge etc date et cetera informations information avez say expérience google ce CV vous à partir de ce moment vous enregistrer il y a une petite base de données où 6 Plaza Recrute à la fin de la journée suñ techniciens yi dinañ def consolider l'ensemble des inscriptions par profil suñ nous ba un mois un mois et demi nous avons on a assez d'éléments ñu commencé faire le tri de par les expériences etc, cetera dañu am ñetti rubrique qui est ne expérience d'abord quoi am 10 ans bokk quoi 2 ans ñu jël ans 10 ans par profil après nous avons par 5 ans si on ñu soxla à partir de ce moment par profil on va voir euh, ONFP c'est l'office national de formation professionnelle l'état état du Sénégal moi ko entreprise pour former ses euh, futurs employés de les mettre à disposition des des employés formés expérimentés aguerris koo va dans le marché du travail bon donc lool motax ñu créer plateforme bi pour que kula wax li nga ne ko demal ci six plaza recrute nga dem mëna euh inscrire so inscrire soxla wa kenn donc à partir de ce moment dina wàññi liggéey yu bari yo jël ay papier di xey suba bo ngon jot di trier di def shortlist et cetera bon donc dal véritablement euh plateforme bi loolu moy njëriñam te suñ ko lancé wul tay xaar mois de juillet nous avons oublié des ñu des fu des jëlee euh, pompiste fu ñuy qui kii compliqué déjà peut-être un mois avant l'ouverture nous avons am euh, sa liste de recrutés uniformés. Nous formé ba pare nga un mois de ce qu'on appelle euh, pré-opening pré-opening ils se font la main pour être sûr que euh, les a ngi dox balaa véritablement pour que tout le monde ñëpp mën a jël seen ay donc lolo, moi, organisation bi ñu teg ba nga xam de nii dañu en même temps su fekkee ne dañuy ubi, rek fekk na nit ñaa ngi ci biir du dëgg su équipement yi ñëwee installer équipement il faut ñu dugg pour se familiariser avec ces nouveaux équipements yoo xam ne xamuñu ko musuñu gis donc il faudrait qu'on prenne le temps donc de recruter donc de les former de les laisser tester les équipements qu'ils vont administrer ils ñu administrer donc l'Oldal, véritablement mooy euh, rôle plateforme bi. première phase bi wax centre commercial bi nga xamné ni hyper la hypermarché là, parce que ben mo xawa tolok mom moom ñu boobu sax ñun sax ñoko appelé moy moy mooy hypermarché Sam xam ma ne yaa ngi voilà parce que hyper hypermarché la won supermarché 2000 mètres carrés la hypermarché 2500 plus de 2000 mètres carrés alors que nous, nous avons am ci 2500 mètres carrés ci kaw 2500 mètres carrés entièrement couvert bon donc une hyper l'ignorer. Si yore ci suuf day nekk supermarché nous, ñu ko moi ñun y eh, yenn qui eh, yooyu bëgguma def seen publicité eh, nga xam nous. nii moom la xam tey waaw bon donc ci suuf ci kaw affaire kër la boo soxlaa pour aller, xale boo soxlaa lépp le plus, soxla ci biir kër assiette kudd fourchette paka etc bol bool ak yëpp ci kaw yërey xale xale matériel informatique yëpp day am ci kaw bon donc loolu mooy centre commercial bi mooy bâtiment bu mag boobu ngeen gis bâtiment bi ci topp ñetti restaurant yi ñoo fa nekk euh, yoo aussi dafa am taille boo xam ne nii ba Dakar amu fa parce que foofu 1000 mètres carrés la euh, restaurant bi ci kaw 1000 mètres carrés la ñaari ci suuf bu nekk 500 mètres carrés la yangi deg bi ci topp benen bâtiment la bo xamné ni en collaboration avec ben italien bu tudd Gambini dañ fay def lepp lo xamné ni ci tabax la jëm képp ko xamné ni dina joggé côté pont après pont noir suñu ñëwee mëna naa fofu euh liñu soxla ci euh, emploi dafa bëri ki balé sax dañ koy recruter parce que so xolé parking bi ni mu c'est pratiquement sur euh, je sais pas des hectares. il faut ñu nettoyer ko loolu il faut ñu garder ko am nañu ñi nar a garder foofu dana am ñaari équipe ñii taxaw ak ñu yor yoo xam ne dañu yor ay moto di circuler loolu ay ay équipe kii la li ñuy ooyee cak-cak tey dañ koy créer loo xam ne nii soo toogee fii sa kër MFC bi Medina Fried Chicken da ngay toog ne dama soxla siwo ganaar ñoom ñu dugal ko ci seen kii muy tàng ba muy yegg si sa kër su ñëwee livré la fekk fay nga ba pare loolu liguey la ciak ciak yoy du deug bon donc euh, euh, ñi nekk ci biir supermarché bi di jaay ñi nekk ci kaw di jaay ñi nekk ci magasin wu euh, construction bi pompiste yi ñu ne mécaniciens yi garagiste yi et cetera ci ci ci baie d'entretien yi ñoo ñëpp ay liggéeykat lañu dafa profil yi dafa bëri bon donc du coup loolu yëpp la dajalé ci ci plateforme bi. plateforme bi du pour ñu am diplôme rek parce que pompe un pompiste mën na bañ am ay diplôme mais am expérience quelqu'un peut ah, je vous ai expliqué 10 ans d'expérience mën na rombu deux am ans wala 3 ans ko xam un mu master master 1 master 2 il a tous ses diplômes mais il n'a pas d'expérience qui a 10 ans d'expérience, moi, mon mën sur le terrain soo ko jëlee tout de suite ñëw dóor mu alors que kële il faut que nous formions. voilà donc euh, véritablement c'est pour tout le monde. dañ fi teewal courel, gu wax office national de formation professionnelle En effet, c'est le docteur Souleymane Soumaré Nous avons déjà invitation bi nga xamante président euh, am na Noko, xalaat invité ñu manifester manifestation, pas seulement en tant que euh, spectateur, mais en tant qu'acteur. Donc, Diwani, ONF fait, euh, dans son rôle régalien, dans ses missions, l'État euh, du Sénégal, muy waajal li des capital humain Il euh, ndaw ñi ci capital xam-xam mais également ci wàllu mën ba euh, jëmmal yenn projet yi nga xamante état du Sénégal ak en tout cas l'ensemble des promoteurs initiatives au niveau local au niveau national pour moom également li ñuy ci main ñu mën accompagner donc euh, dans le cadre de ce projet euh, un projet similaire boo xam ne jot nañu identifier jot avec les acteurs du secteur li ñu les référentiels de formation donc les référentiels de formation existent déjà euh, donc ce sont ce seront des formations de courte durée donc si tënk day nekk tàggat yo hamni. ni euh, ci diir bu gàtt lay nekk ndax ku ne ni président Baye beaucoup de ko déggee da il est dans l'action donc ku bëgg a ànd ak moom ci liggéey nga réactif donc day nek formation yoo xamante ni euh, ci diir bu gàtt lay mais également mu nek ay formation yu pratique nga xam ne ci rek qui de cette formation en plus xam-xam bi bi occasion nous sommes là pour saisir vraiment l'opportunité des jeunes et plateforme bi nga euh, recrute la pour permettre aux jeunes d'accord ñu diplôme double un CV pour mener décrocher son premier emploi ci euh, donc investissement l'entreprise entreprise au niveau de la région de Kaolack Nous sommes ici donc représenter donc les jeunes mais aussi de manifester notre disponibilité et suñu engagement pour accompagner le processus de recrutement parce que comme c'est un processus de donc d'amont à naval, nous allons sensibiliser orienter et informer les jeunes à aller vers la plateforme

c'est des, des, des, des, capitaines d'industrie, comme on a l'habitude de le dire, d'initier ou de tech entreprise du Melni, qui ci région pour défendre ko euh, chance pour euh, décrocher son premier emploi